li gars yi naan tout s'explique tout s'explique dafa am euh, temps yi da ngeen di gis nii waa des médias tribune da ngay gis acharnement bi nga xam ne dañ ko am ci kaw ci kaw nguur gi donc da ñëpp gis nañ ko ay information am te ni dara du ci dëgg dara amu ci seen plateau télé yi ñu teg ay nit ñoo xamante ni ay nit ñu nul amuñu benn xam-xam ba pare di wax lu leen neex kenn xamul fu ñu jógee bu ñu toogee di wax lu leen neex def analyse yoo xamante ni kenn xamul yan genre nit lañu mooy ñu nekk seen télé bi lu boo déggee mooy tout s'explique tout s'explique da ngay gis keroog ñu ngi wax ci affaire soble ñu ni soble bi dafa cher soble bi dafa yée dafa cher amatul dafa manqué ñi nga xam te ñooy gérer mbir moomu génn démentir leen ñu wax démb ci ceeb bi loo xamante ni du dëgg ceeb que ni 350 la doon jaay yokk na 500 du dëgg Sénégal ba fi ceeb gëj a jar 350 kenn xamul kañ la donc ñoom peut-être dañuy anticiper ci wàññi ceeb bi war a am parce que ceeb bi dañ ko nar wàññee wàññi donc dañoo bëgg kon buñ ko wàññee ñu ni ceeb bi mosuñu koo wàññi ndax 350 la doon jar c'est-à-dire bu ko gars yi yóbboo 350 ñu noono 350 la doon jar mosuñu koo wàññi donc cinq maanaam ci manipulation boobu lañ nekk donc pour wax leen tout s'explique nekk ñoom dafa am parce que dama lire léegi seen benn circulaire boo xamante ni seen direction bi moo ko bind muy wax ni dañoo jot ay harcèlement ni dañoo war a fay fisc bi ay 2 milliards ak yu demee noonu di expliquer wax ay wax yu bëri quoi ci seen circulaire boobu ma leen xamal ni président Macky Sall dafa recevoir le les les les les patrons de presse avant muy dem juste avant élection yi mu éponger seen dette bi ñu amaloon nguuru Sénégal à hauteur de quarante milliards. donc itam président Macky Sall éponger dette boobu noonu baal na leen ko te décision boobu président Macky Sall jël dafa nekk décision bu illégale donc illégal am maanaam décision boobu effectiful kenn du ko kenn tenir ko en compte de décision boobu décision bu ñu annulé la baaxul donc Maimouna Ndour Faye expliqué na ko démb jot na courrier pour fay. donc D-Média ameel état bu Sénégal deux milliards fisc war ko fay donc ñoom ñi ngi ci ak fisc bi di di di di di xool nu muy demee amoon nañu visitu waa waa impôt ñi nga xam ñoom lañu war a fay waa fisc bi demoon nañ fa démb u barki démb donc ñu ngi ñu ngi ci problème yooyu noonu ci loolu nag la ñu bëgg a mbubboo pour wane ni comme ñoom acharnement bi ñuy am envers nguur gi moo tax ñu ñëw pour fayeeku leen tappale ci lañ nekk maanaam comme si wane ni seen jour seen acharnement maanaam ñoom liggéey bi ñuy liggéey ci presse bi moo tax nouvelle autorité yi di leen topp te loolu bi ñu koy yoree état bu Sénégal presque nguuru mag Sall bële la woon Macky Sall éponge boobu waxoon ne éponge dette det bi amatul maanaam ñoom ñëpp dañuy fay TFM day fay D-Media day fay Maïmouna Ndour fey ñoom ñëpp dañuy fay parce que quarante milliards lañ amel Sénégal Macky Sall dafa mën a toog nii rek toog ak ñoom ba mu neexoon ni loo xam ne xaalis boo xam te ni réew mi ñoo ko moom askan wi ñoo ko moom mu taxaw nii baal naa leen ko 40 fan la ko donc deux milliards lañu amal état état bu Sénégal bu fekkente ni sa avéré et nañ ko fay tamit nit ñi jàmm donc bu ñu mbubboo seen yii ñuy bind temps yi seen mensonge yi ñuy bind pour wane ni nguur gu bees ka dafa ñëw am acharn di acharné wu ñoom loolu amul loolu du dëgg loolu amul loolu mooy vrai dëgg-dëgg li tax ñuy bind seen bind soob maanaam di def ay diffamation diffamé di fenn mu jaraleen ko pour ëllëg ñu layal bis bu ñu demee bu di xam ne dañoo war a fay ñu jàpp ni fay gi ñu war a maanaam li ñuy bind temps moo tax état bi di di leen harcelé jëm ci ñoom te loolu amul. bor bi nga xam ne Macky Sall moo leen ko baaloon bor boobu noonu exist maanaam bor boobu noonu nga xam da ko baaloon loolu moo tegul fenn see décision bu illégale la te Macky xam na ko daleen leen a utiliser use woon pour am leen ci élection yi far yàlla lii am am. ñu jaay naan tout s'explique tout s'explique dafa am. Euh,